أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku itam ci ñëpp di wax ne rek jamono ji ñu toll jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus nekk loo xam ne lëggee na àdduna di ñaan yàlla musal ci mbooleem jullit waaye musal ci itam mbooleem doomu aadama yal na yàlla musal ci daal mbooleem mbooleem mbindeef yàlla yëpp rek su ko ti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it jàngale lépp nit mën naa wax ne lu ne rek yonente bi sallallahu jàngale na ko hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñaan yàlla mucc ci yenn jàngoro yi ndax jàngoro yëpp duut ci lay doon yonent bi sallallahu alayhi daan ñaan di ci mucc ndax yenn jàngoro itam nekk na loo xam ne baax na ci jëmm waaye nag am na jàngoro yoo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnoon na ñaan yàlla musal ko ci waaye musal ci mboole mi jullit moo tax an anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqul allahumma inni a'uudu bika min al barasi wal junooni asqaam mu ne yàlla wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma yow suñu borom indi naka man amawtu maa ngi muslu bi ko ci yow minal barasi ci baras te mooy ndoxu siti wal ak eh, junoon te mooy faddu xel te mooy nit ki tàggalikoog ak jàngoro ju xonq ji ñeneen di ko wax ngaana wa sayi il asqaami ak mboolem jàngoro joo xam ne rek jàngoro ju bon la mooy mboolem jàngoro yu bon yi rek yàlla nag ñu ci musal ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa doon na muslu moom borom bi tabaaraka wa ko doon na muslu kon ci borom bi tabaaraka wa taala ci mbooleem jàngoro yi nga xam ne jàngoro yu bon na yëpp ndax rek ragal nit ki am dood ak kattan ci mën a muñ feebar boobu ak itam tabbi ci yokkat ci feebar ba waaye itam tabbi itam ci ñàkk a am tiyaaboo ci feebar boobu nga xam ne moo dal ci kawam te feebar yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ak tuddaale ci yi nga xam ne yu mel ni ñoom la léeg-léeg mun na yàq bind bi maanaam bindu nit ki waaye itam mën na ko yóbbee itam yàq ay jikkoom dana ko yóbbee itam dem ba nit ñi di ko daw wala sax moom muy daw nit ñi su ko defee nag jàngoro ji ñi toll tey yàlla ñu yàlla boole musal musal ci mboolem àdduna loolu itam da koy jur te mooy kenn ku nekk di daw sa morom kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toon mukk ci mboolem feebar yi déedéet ndax dafa am yenn feebar yoo xam ne dafay fetal nit ci ay bàkkaar su fekkee nit ki boole na ko muñ ko te nag nit tam itam ta ñàkk a ànd mukk maanaam nit mënta tàggali ko daal ak feebar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci beneen xadis ne asadun naasi balaa an al ambiyaau fal amsalu fal amsal ndax dañ ko laajoon kan moo ëpp ci mbindeef yàlla yi natt mu ne al ambiyaau fal amsalu summa al amsalu su ko defee mu ne kon yonent yi ñoo ëppoon nattu ñu ci topp ci mbaax rek ñoo ci ëppaat nattu ñoom itam su ko kon daal xadis a ngi noonu boo xam ne yonent bi sallallahu moo ko jàngale doon ñaan yàlla itam mucc ci mboolem mi jàngoro yi nga xam ne moom la tudd ak yeneen yoo xam ne bone na ni ñoom mooy allahumma inni a'udhu bika min albarasi wal jununi wal jusaami wa sayyi al asqaami li muy tekk mooy yàlla maa ngi lay muslu ci jàngoro yi siti waaye jàngoro yi ndof waaye jàngoro yi itam jàngoro ju xonq ak mboolem jàngoro yu bon yëpp yal nañu yàlla boole musal ñun ñëpp musal mboolem mi jullit musal mboolem mi defam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu